yettamaki jindande gawrama dajampal neri tetuɗa sakaki saboko saytaña ngalaj lido ko ƴenne ko yewa yeɗal buhari yewa anduma watal ko tan man manango ko ɗal buhari yewa anduma watal ko tan man manango ko ɗal buhari yewa ye taxtama yettamaki jindande gawrama dajampal neri tetuɗa sakaki saboko saytaña ngalaj lido ko ƴennima yewa yeɗal buhari yewa baraba bubakar laa ilaaha illallaah. kon su wéy bu ko jeexal. Ibil egsi. egsi bi maa maa maa ngi def dégg nga. waa Mbese. salaamaaleykum. waa egsi man de maa fi ne dugal. ma dugg. waa ñu waay. waaw. eh. lu xew. amul dara la man nekk ci boppam li ma wax ci boppam man moom laa mënul du ma ko léegi doo ko def àll ndax li mu bëgg a diggee ak man ci boppam man boo ko diggee sax man am dof laa nit ko bon laa xalaatu ko jigéen jaral ma ko na ma ma ba xëy dee waaye li may sant du ko def xalaatu ma ko doo ko am waaw léegi lan la la wax li ma wax lépp dama koo mën leera benn xoolal ci pour jàppale ma te leera damay jàppale képp leera jàppale gi saalam bi dara nekkagul ci saal bi te saal bi dinaa ko lala kay mokat ba mu fees dell mokat bi dong cinq cent mille lay jar dinaa ci teg ñaari canapé ñetti pour ah. dana ci dem ak ñeenti fauteuil yu ndaw fauteuil bu ndaw bu ci ne dana am taabal ci kanamam taabal ci ci ne palaat dana ci tege palaat bi ci ne kaas dana ci te loolu nag noppeegul loolu dong boo xoolee juróomi millions yi bibliothèque bi nekk ci biir saal bi bibliothèque bi xam nga bibliothèque moom bi am juróom benn mbootaay am place weer yi ci digg bi place seet yi ci digg bi

ñaari kamot kamot bu ci ne putu fleur dañ ko teg putu bu ci ne dana am làmp bu cay tàkk làmp wéeg bu ci ne nag ci koñ koñu nekk ne dana am koñ bu ne dana am làmp benn làmp wéeg donc laa la wax làmp wéeg benn bu ci ne fukki junni ak juróom-ñett lay jar nee moom teg na ca ba te bëgg ko jënd te maa koy jënd ba pare nag diggu néeg bi dana am làmp